contentement bu baax a baax mais ñu ngi amati mbégte bu baax tey ñëwaat biir Pikine amati mbégte bi di jox suñu papa Père Mansour di ko ñaanal yàlla suñu bàyyi parce que tey bu ñu ci làmb nga bëgg tey ñoo fi def lu rafet buñ ko mais ginnaaw loolu nag tey ñëw ci moom doomam di mu bëri na Boy ak manière def la mu war a def ndax nag yàllaa koy Père Mansour ñu ngi leen nuyu di siyaare ñu ngi leen di sant bu baax di leen siyaare yéen tamit ñu leen ne leen rek ñu ngi fii Kër Boña tey eh, te it nag man wax dëgg yàlla tey maa ngi doog a génn sama kër. damaa sonn maa ngi doog a le léegi. bon bu ma yeewoo ma ni xaaral ma jubal kër dégol doo ko seet leneen lu may def maa ngi di nuyu bu baax yéen ñëpp si diine ak Sénégal yëpp maa ngi di nuyu bàyyi ma kër. bébé suuf nga ànd a sa doom di sa lépp booy ñaan ngeen préparé ki nga xamante ne mooy Modou Lo gis nañu waroon nga ñibbi sax ay jamono ci ginnaaw bi nga xamante mais nga toog annulé si billet ndax xale bii ma bàyyi ma wéet ci làmb ji damay ànd préparé ak moom combat bi nan nga waajalee oh, ki nga xamante ne mooy Modou ak démbul am ci làmb ji waaw ni ngeen ma ñu waxee micro yi nag métti na trop de koy xaw a daan da ngeen koy xaw a daan tuuti quoi voilà waaw waaw ñu ngi leen di nuyu. Eh, di leen gërëm di leen sant. di leen ñaanal yàlla. di leen wax rek ni dama leen di wax rek loo xam ne si lu wér la. gis nga làmb. sport laay wax. ku koy def. ku bañ ñàkk. bu def sport. ki gagné premier janvier bay passé. jubilé. togg ay ñam nit ñi lekk ñu saafi yàpp saafi ganaar ñu woo ko fu ne invité ko ci géew gu ne tànn béer gu ne xéewal fu nekk ñu woo ko fa premier janvier dellu soir atum yàlla mu ñëwaat ñu daan ko la yàlla dogal waaw ki ko daan ku ko daan Balla Gaye moom moo daan ku daan Balla Gaye Boy Niang Modou Lo jëlewul dara Boy Niang lu dul dafa daan Balla Gaye moo tax mu jël ko ndax moo ab Boy Niang fenn fi nag moom ay moroomam fi nekk rek di bëre atam àggul fenn fi wax naa ko nee naa ko mille page livre bu def mille page est-ce que yéen a ngi may dégg livre bu def mille page moom la Boy Niang tim muy làmb mu ubbi ci fukki page mm-hmm. mu des yeneen page yu bari mm-hmm. kon dese na lu bëri ci lamb. 190 pass. ah. nga 190 pass. ah yow mii wax na yaa yow nag man bëgg naa toog ak yow mm-hmm. ndax su ma waxee dara dama koy tekkil. 1000 mm-hmm. pass la. Mm-hmm. booy ñaa 1000 pass la la ci lamb. mu fukki page lu cay des. cent quatre vingt dix cent quatre vingt dix ñaata at nga koy ubbi. Hmm. ñaata des na. Hmm. kon li mu dese bari na. Hmm. ko lu muy jooy ñu fay la ki dem ci Modou Lo Modou Lo dañ ko war a gërëm nag. boo ñaata ko jóg ñu fay ko ci xaalis bari. mu teral ci ndey na baay bi yóbbu la nak ñibbi si adduna bi waa wàllu si ko mu def ci teraanga yu tabax ci kër gu mag gu ëpp gi mu dëkkee déglu woo ma de ah lay dégg de per ak nekkoo fi maa ngi fi gu ëpp gi ñaari yoon ñetti yoon. mboñ am na beneen kër gi. laa ilaha illallah may mara mu ñëw waaye. loolu lay waxal. boo ñaa fu mu ne. da ko gis fii ci kër gi. ah fi mu fi jóg fii la fii la fii de jeex na bon déglu ma rek. victoire yi mu def ko lu ko may làmb. gan la bëree ba tax mu am loolu Modou Lo. te Modou Lo di magam. ni boo ñaa laa jox change. Mhm. mu am ci loolu lépp. li ci dara doomu aadama yi tëral ci ay xaritam. teral ci ay ay ay ay ay soppeem def ci li mu ci war a def lépp waaw mais kon daa war a gërëm Modou Lo bu Modou Lo nagul woon ba rek moom du loolu kon dañuy gërëm Modou Lo mais mais Modou Lo jël ki nga xamante ni mooy Boy Niang ah. coow lu bëri woon lool lool lool ci làmb bi seen diggante ñoom ñaar coow lan la coow làmb non da nga ne coow làmb kii ni coow Pikine mhm. waxi bokkul de su ngeen di wax da ngeen di méngale seen wax muy benn man ngeen di laaj de mhm. laaju leen keneen de man tappale ay wax man bëgguma ko Pikine bala avance bi duggee fii amoon coow. coowu lan mooy Ama Balde mu ngi préparé mu doo ñu ne boo ñëwee jël na avance ba. Uh-huh. ci loolu ñu coow am ci làmb ji. démb gis am ci làmb ji. bàyyil ma la. li am ci làmb ji mooy la daanu daanu. waaw mais est-ce que na Pikine. amul dara lu arrangé wu Pikine. Pikine nekk ñu fi pour di daan bis bi yàlla sàkk. ñi ñu daan xaar ñu ay nit. Mm-hmm. ay jëm àddama la ñu daal di jóge seen kër am ndey bàyyi bëgg lu neex. mais mais est-ce que coow loolu taxul ngeen ñàkk seen. dara amu ci dara du ci dëgg. Ah. benn coow taxul. Ama Baldé mi ngi dimbale ay waa këram. Boy Niang mi ngi dimbale ay waa këram. li importance mooy loolu. te Ama Baldé muy boo Niang kenn dootu ci perte làmb. kenn dootu ci kenn dootu ci perte làmb. ah déedéet. dama ni Ama Baldé Boy Niang kenn dootu ci perte làmb. Ama ba lu mu lu mu lan la bëre ak Modou Lo roi des arènes. boo ñaaw lu mu bëre roi Ama Baldé amul kenn ku bëre roi des arènes di perte lamb da ngay bëre waat. nii daf maa li wax nii daf maa neex ma di ko wax kenn mënu maa jay mais père dama ne Ama Baldé bàyyil ma eggalee la ko bu ci delloo dama ne Ama Baldé dootul perte làmb uh-huh. Boy Niang dootul perte làmb roi des arènes mënoo ko bëre daalu ci di perte làmb uh-huh. mu tënne uh-huh. sant nañ yàlla bi làmb wàññeeku ci ñun ba yor ñaari gone yu mën a bëre roi des arènes waaye dama la wax benn affaire bu tuuti dama la wax benn affaire bu tuuti ngeen déglu ko fii da ngeen di ay xale Alioune Seye bëri na ak Birahim Ndiaye. Mm-hmm. stade Iba Mar. Mm-hmm. ñu bëre. Mm-hmm. quarante cinq minutes kenn mu daal sa morom. laa ma tas. Birahim di yaakaar revanche. ñu xëy ci ba ca jox Mor Gueye avance su Alioune Seye ñu war a bëri nocturne. te ñoo doon ànd tubaabu joor booy tubaabu joor Birahim Ndiaye. Mor Gueye ñoo doon ànd. muus ba ay mbir du ñu bëri ci koñ bokk ca bokkuñu adversaire c'est pas possible. ñu ko jàpp yii tey. di ànd ak ak ak Modou mu nekk Fass taxawal di digg dama Aliou Diouf ma war koo fay cinq millions te boobu mu sëkk un million. yéen a ma dégg bu baax. ñu xëy suba dégg ni combat ma Moustapha Gueye taxaw na ci sept million kooku xam nga day daanu gàngri. Mhm. ko musul gis c'est un mhm. ñu ne sa combat Alioune Diouf taxaw na ci cinq millions. ñu mhm. xëy suba ñu ne waa te booba Fass nekk nekk Fass. gis nga ñu wax ni ay futilité la. dara. mbër yi bokk carrière bokk jom bokk anandoo dañuy dem ñu ba ci biir dañuy bokk ay adversaire donc man duma yàq làmb te fi ma toll ci diggu Sénégal ba koo gis mu naan Père Mansour Diop ba nga nee Père Mansour Diop ba nga nee fu ma dem xale yi naan ma Père na yow la ñuy wër ñii naan ma yow la ñu ne yaa ñu neex dootuma yàq damay defar waaye bi muy wax ak man maa ngi kattan koo xam ni barke Seydina Mouhamed su ma ko dóoroon dama ba ñëw ma suuf sama ndey soo bàyyi cent quatre-vingts kilos laay yanu trois cent kilos laay def laay deux cent quatre-vingt-quinze kilos ak sama bakkanu yaay bi muy wax ak man boobu maa ngi door a joo xam ni su ma ko dóoroon barke alaaji maa mu wàcc mais dama xam ni loo ànd ak mbër doon baayam ñu ñëw ci làmb dégg man ko te làmb ji sotteegul ñu ngi dóoree ñu ne papa ma ngi histoire rafetul mais père lan la ko booy ñag ci làmb lan la mais booy euh, am na démb ku dugg ci biir bi tàllal loxo du dara rek du dara. <laughs> rek ndaanaan la. Uh-huh. doomu mbër la. Uh-huh. maa ngi bàyyi ma bëri ndoo jaagaan kan. papa kan di magam. Uh-huh. mbër gi Modou kan moo jur. baayam. yaa ngi dégg. Njaati Njaay. grand champion ba teel a gaañu. moo jur yaayam. bu nekkee champion yow yoon la mu nekk champion. la. lii mooy lamb ji. waaw mag ñee war fi xale yu ñu xëccoo. waaw. ma ñàmmi xaalis nañ bàyyi xale i xëccoo ngër ke yu bëri doole yi ñu xëccoo kenn ku ci ne di xëccoo loolu du dara rëg-rëgoo ma sàmba ak ma li ñee njaay laa ceemale booy ñaa li ko def ci lamb dafa bëree bëree bëree bëree bëree bëri karkar macha mais est euh, ci ci mbëri ci ci kaw ku ci mel ne Tapha ti la dëggeeram échec ci xamante ne mooy échec benn combat ci waaw dama ne euh, la rëpp naa sa coosu soob non may ma rek ma ñëw non damaa bëgg nga déglu ma soo boo ñaa bu daanoon tey Modou Lo ñooñu nga wax dañ ko soxlawaat ku daan nit kay dootoo ko soxla mm-hmm. te ba fii may waxee yoon nii naka dugg du laa ba ci ma xam fu mujj laa daa xat boo ñaale bu def dem laa ma ci gis ko de kenn la ko def laa ma ci feesee dëggu ma si gis ci àdduna man ngeen di ma xam eh micro yi ngeen di daan nii ma wax ak yéen waaw nga waat seen baaw bi ñu demee ñu koy daan ñu bëri ñu koy daan. loolu la ah ñu ngi dëkkee ñu doon ci ay rëcc. ci am rëcc xam nga musuma ci am rëcc ñun dañu doon jaay làmb. di jaay ko ba non dama ni Serigne Babacar laa bëgg. moom laa gëm moom laa wóoru. ku mën naa ci dóor nit mu dee. dégg nga waaw dama ni est-ce que yaa ngi may déglu baax. am naa droit lu may wax mu neex mbaa ma bëgg mu neex ma waatee ko. yooyu yu ma wax nii yooyu yu ma wax nii dama ko laaj teg ko fële man musuma rëcc du tudd sëñ Babacar Si du rëccu su ma xëyee suba Tiwaawan laa bëgg jëm su ma accès lam lam rek bu mën accès naa Tiwaawan la dama ni ñuy waar ci làmb bëri na man lu may wax ci lu neex damay tudd sëñ Babacar Si bu ko bay ñëwal maa ko wax bu suba ma waxaat ko aw ma ci benn rëcc tey la gën a neex hmm. sëriñ Babacar Si mais père. Serigne Babacar Sy bu Alaaji Malick si sa wàll bu tuwaawan moom laay wax fu ma toll mhm. ku mu neex lool la ku mu neexul lool la mhm. maa koy wax mu naqari ci man dama koy wax mhm. mu neex dama koy wax mu diggu doomu dama koy wax man la mën sot jóob mu am kenn koo xamante ni ci waa Pikine saa buñ ko dékkee micro macha allah lu rafet la ciy wax euh, muy nga xamante ni mooy Koumba Balde di mag ci Ama Balde saa buñ ko dékkee micro lu rafet lay wax mag Pikine yi ñoo baax xam nga yéen yéen waa siit yi da ngeen xaw a doy waar xaaral rek ma ñëw toujours da ngeen di jéem a ay góom yoo xam ne amul sens Kumba Baldé suñu seex la ma leeral leen ko mu yombale ko uh-huh. suñu seex la Faalaay Baldé ko jur uh-huh. ñu nekk xale morom ak moom cere Baldé bi ñii di bàkkoo uh-huh. waa géej ay ku nekk di ko wax ñoo ko jëkk a lekk jëpp dañu daan dem ni balance dañu dem mu jeex ñu ñëw kër Falaye Balde fa la ñu fanaan dindi blanche ba fajar ba mu leer ku ne ñibbi. dégg nga wax ji. comme Balde nekk suñu morom nekk suñu seex. papa Balde nekk suñu rakk. comme Balde suñu rakk la. suñu sœur la wuy ma. Uh-huh. wuy ma xam dafa am benn jikko bu ne ci moom. te jikkoy mbërum làmb la yor. waaw dégg nga wax ji. Uh-huh. ba pare doon guerrière. il faut ñu wax ko. Uh-huh. ba pare mu doon saam boo xam ne wuy ma. jàppale leen doom ji. ñoom ñëpp jàppale Pokola waaw ndax xamul tax yaayam ku baax la ku tekki la xam nga kan mooy ku tekki ku soxorul iñaanoo bëgg nit ko am tranga koo dëkkal bëgg mu am tranga moom la ku babal ku babal de mel li muy wax nii di ko dégager loolu moo na ci xol bi ko suñu suñu sœur la mhm. comme ni Ana Ndiaye bi nekk suñ sœur ku babal de noonu la nekk suñ sœur bu sonn gis nga loolu muy wax noonu gis nga loolu muy wax noonu mhm. lumu mu maîtriser bu doon góor tey kër ba de kenn du fa layi lay moo fay doon bërëb làmb billaahi wallaahi talaay ba pare ma xam ko man xam ni guerrière la du tiit amul lu muy ragal mhm. ba pare xam la ma ko dal yaa doomam mën naa am lu baax xamal do mën naa am lu baax dafa coxorul dafa coxorul xis ama coxor soxor daa am coxor am coxor mooy ki bëgg nga ndóol ñu sol yore Lagos bu baat ba xotteeku ñu ñawee ko ñu ñawee ko pusa ngaax dégg nga wax ji de ñu sol dalu dalu yu fi di feere ku coxor noonu lay mel loolu la lay yéeme sam papa nag nee euh. kooku xam nga noo koy def da ngay sol daal yu bees sàq ah. sol basin bu riche ah. xeeñ bu cher romb ko nee na boo ko rombee muy ree nee na réew day jooy ndax am na réew yoo xam ne jooy la jooy la man maa la ko wax man jëm lu conseil ba jëm ba waxoo ko fi amul ay rab amul ay laa ko gën a mën a wax tey ah. rab amu fi jinne amu fi malaaka amu fi ah. kenn ku sax laaf amu fi lamb ji ñaar rek ay bëri moo ñaari nit maa ko wax ah, maa ko waxaat tey tey laa ko waxaat prochain adversaire u Boy Niang prochain adversaire u Boy Niang nañ ko bàyyi yàlla ku xamul la réeré suba mënoo xam li am tey <laughs> la bëri na am na ku ma dëkk démb de. ku ma dëkk rek nag rek rek waaw rek nag ah déet. rek nag dafa sampu la plupart ku sampu ndënd loolu moo tax ki daan. lay joxoon ñoom wala waxal dëgg gi. mais ñaar ñi wax. loolu la wax waxagu ko mais man ko wax. bu ko waxagul bu ko wax. la jub jàmbur mënoo ko wax. déedéet moom waxagu la moom si la. kan. Ah. la kookan la. mu lu mu waxta ko fu mu ko waaye tamit. ñun ñi toog fii da ànd ak boo ñaa xam nañu luñ koy nanguloo ak ko du nanguloo. jërëjëf def.